dossier bi soxal coppiwaat xar kanamu marché Sandaga nag am na mbir bu ci yees di rek ay cantine yu ñu yokk ci wàññ bi ngir déjjët leen fa cantine yooyu nag moo di rek yi wër centre commercial Djily Mbaye ñoom nag ci kàdduy ña fay jaay bokkul woon benn yoon ci plan ba nguur gi tëraloon. côté bii nga xam ne bokku ci mësu ci bokk centre commercial Djily Mbaye ngi nii bi mu ko buggee tabax borom tante ne lu nekk pour ñu jóg mais gars yi dañ ko waxtaanee. bam tabax tabaxam kenn jógul kon centre bi tay buñ ko bëggé tabax fi mu am différence bi national yaakar nañ ne bu dé liggéey rek mo leen ñor amul dara lu nekk ci ginnaw war nañ leen mëna bàyyi ñu taxaw def seen taxaway def seen liggéey ñi kon ne seen liggéey ba li pare ñu jëlé leen fi duggal leen fi ñu doko def lañuy def mais ñom ñoom ñu bokk encore fois ci projet initial bi yaakaar nañ ay Sénégal lañ ci dëkk bi la ñu bokk biñu biñu bi ñu Sénégal changé dañu taxaw xex président Macky Sall ñu Abdoulaye Wade dem Abdoulaye Wade Macky Sall tok fi ñu nekk ay nit di liggéey dañu wara protéger ñoom ñoo war a jox ñu liggéey ñooñu war a assurer suñu jàng defuñu ko ñu ñu keneel suñu bopp jàng dañ koy ñaan en tant que président ministre bi ministre la moom moo ko sant liggéey ñun ay Sénégal lañ fi lu mat plus de 500 et quelques cantines mu ngi fi di liggéey nañ bàyyi nit ñi ñu may ñu ba fii ñu nga xam ne liggéey ñi nga xam ne ni ñoom tey ñoo amoon problème bi depuis 2009 nangu nañ tey dem ba recensé nañ leen ñu ngi dem di ñëw ñu ngi leen jox seen ay numéro cantine nañu leen jël côté gauche ñu bàyyi leen ñu continuer seen liggéey changement boobu mooy parti bi ñu ciy boole daf ci bokul bokul ci programme bi te ñun liggey ñu ci loolu lañuy ñuy askanu senegal bi wone leen kat loolu ñun ànd nu ci ci parti bi nga xamantene nak tamit moy moy fi di euh, marché bi ak liko wër loolu ñun d'accord nañu à 100 pour dem ndax wax day leer te nañu ko waxante woon ak ñoom tamit pare nañu pour défé ko ñooñu li ci galancor gi rek te duñ ko nangu moy dañoo ne bala balaa fi joggé dañ danañu ñu défar ay mesure de garantie yo xam mo ñuy permettre bu ñu fa démé feulé ci centre de course ba ëlëk bu projet bi taxawé kèn ku né cantine bi nga fi jëloon nga dal koy andiwaat waaye sunu njàqare moy préfet bi nga xamante ni mom la yalla dogal ñun ñu nekk ak mom di liggéey tamit dafa xawa jël position bo xamné xawnu xaw na lu jaaxal ndax waxtaan su mënul am fi nek ñuy dégër biir loolu moy wane né kon japp nañ ne lañu bëgg dootul mëna am comme dañoo démon nak ba ci Serigne Mountakha Mbacké yàlla dogal ñu jëlul fi engagement ñoom ci ne danañu def ay loo xamante ne nii danañu leen def ay papier yu leer jël sëriñ Bass te ñu teg ko ci loxoom mu doon mu suñu kilifa loolu la ñu bëgg ñu dellu si ci defal nu ay këyit yoo xamante ni dana danañu mën a garanteel ne sunu ëllëg nag wax dëgg yàlla bu nu demee fële danañu mën a ñëwaat fii jeetaat sunu pro suñuy suñuy tey nag ATS di association bi ëmb commerçant yu Sandaga ñoo ngi ñaan ngi rek nguur gi yokk dele bi mu joxe woon ndax ñu mën a amal seenub toxu ci anam ya mu gën a mucc ayib woolu nañ leen it ngir rek ñu sàmmonte ak ndogal ya ñu jëloon ak ñoom. tabaski bi nag ñun ñoo ko waxoon senegal yëpp di ko dégg dañu leen ne ba nu saytu ba ñu demee eh, ca site ba dañu leen ne li nu gis ci site bi fii ak ni marché demee ku ne xam na ne yéen sax nañ bët lu yéen waaye xam na lu ba partout xam na yen ne mënunoo wax dëgg yàlla génn bëgg tabaski kon ku da nga am njaboot bëgg dem tabaski bëgg a say bagage bëgg a dem daaj cantine bëgg ko ranger bëgg ko kii c'est impossible mënul nekk waxtaan wax dëgg ca la ñu ne ne nañu nu may ku ñu ñaan nag yow yaay xool lañu la ñu lay may lan la mais damay bañ ñu ne waa Sandaga dañoo bañ a toxu ñun bañuñu toxu ndax dañuy dem rek dellu si bàyyiwuñu suñu marché tey bàyyiwuñ ko ëllëg liñu ñu wax moom lañu gëm ko ne dañu ñuy ak joxat lu suñu marché wa way boy défar nit ki diko ko marché ba des lu ñetti poñ rek ñetti poñ yi ngeen dese war ngeen ci mëna tok yow mi kilifaam nga ñëw ne ko ah man engagement bi la ci am ñu ne bind ko si ñamu jeex ñun garantie rek la jeex na. garantie nak di li nga xamne ñu ngi koy sakku ci kilifa yi bolé ci nak di artu ci sen bagage yi ñu nara bayyi ci bërepp bi ndax rek fas dem tabaski ji. bëggunu ko nu yàqal ko dinañ tabaski ji nak bu soobee yàlla yonent bi bàyyi fi tamit incha allah sunuy bagage comme niñ ko daan defee nañ ko daan defee duñ ci bàyyi dara noonu lañ ko daan defee waaye nañu nu andil nag lettre garantie yi ñu nu waxoon nga xam ne mooy mën a tax nag ñu dem ci sunu site de recasement bi sunu projet bi. ndax bàyyi sécurité. sécurité ko yore gannaaw yàlla ñoom lañ ko dénk bu seen doomi réew nag seen alal bëgg rek yóbbu ci benn site boo ne dañ koo yàkkamte ba yàq seen alal. ñu xam ne loolu seen responsabilité ñun ba ñuy jugu fii Dakar majeure partie yëpp andi wuñ fi dara ah kon nag li nga liggéey ba yàlla jox la ko bu fekkee gëm nga ne yàlla nag tey rek ñu ngi lay andil injustice boo xam ne wér na ne tegewul ci yoon nga jàpp ci yàlla bàyyi la loog yàlla buñ ko yàqee nga dem jaamu jiwaat yàlla dem liggéey ñun ci liggéey liggéey ak jaamu yàlla ci leen fas yéene wii ci la nuy dee nañ ba bàyyi xel ci fi bokkut ci tey bokkut ci suba ministre bi moo ne war na ko ci boole moko ci bolé way bokku ci won xam nga lool ku liggéey kat bu nit te nak ñi fi nek pare wuñ dem parce que ñu ci won tay tey ñu ci suba dañuy interpeller préfet dañuy interpeller président de la république à ce que nañu bay ñi nga xamné ne ñu ci won depuis presque 2009 ba légui ñu ngi ci marché bi masuñu ci bokk kon mënuñ bay ba dañuy minute ñun dañ ci ngeen bokk amna amna lu ci laxasu ay téméri place nak la ndogal bi bàyyi ko ci préfet soxal mom momé sax jaar na fa ci kaddu ñilé ni ki aljuma ci guddii ngir wéyal wàññub cantine ya ñu fa nare di jët